Fatima ma chérie maa ngi lay mastawu et crois-moi je compatis avec toi ndax li ngay dund xam naa ko bu baax te kontaan naa ci taxaw bi nga xamante Sénégalais yi taxawul nañ la ko ci jigéenu Sénégal ni ñu la taxawoo et pour une fois je pense que l'État Sénégal nga jël ay responsable la pour protéger ay jigéenam et pour protéger ay doomam ndax euh, gis naa ne dëkk bi fii nii ni ñu wax ak protéger ñoom ñoo ñu yàq ñu ñu war a protéger ñoom ñoo ñu jaay doole te loolu dafa war a takk et j'espère que je prie le ciel pour beneen jigéen bañ a dundati li nga xamante ne moom la xale jigéen yi nekk di dund instant bi et maa ngi ñaan képp koo xamante ne mun na jàpp pour loolu bañati am wala képp ko mun na dox wax ci pour loolu bañati amati ñëpp jël seen responsabilité jaay doole bi ñuy jaay xale jigéen ñi jeex. Fatima ma chérie maa ngi lay mastawu et crois-moi je compatis avec toi ndax li ngay dund xam naa ko bu baax te kontaan naa ci taxaw bi nga xamante sénégalais yi taxawul nañ la ko ci jigéenu Sénégal ni ñu la taxawoo et pour une fois je pense que l'état Sénégal nga jël ay responsable la pour protéger ay jigéenam et pour protéger ay doomam ndax euh, gis naa ne dëkk bi fii nii ñu ñu wax ak protéger ñoom ñoo ñu yàq ñu ñu war a protéger ñoom ñoo ñu jaay doole te loolu dafa war a takk et j'espère que je prie le ciel pour beneen jigéen bañ a dundati li nga xamante ne moom la xale jigéen yi nekk di dund instant bi et maa ngi ñaan képp koo xamante ne mun na jàpp pour loolu bañ a ci am wala képp ku mun na dox wax ci pour loolu bañ a ci amati ñëpp jël seen responsabilité jaay doole bi ñuy jaay xale jigéen ñi jeex.